mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak euh, jàmm ci xibaar ginnaaw procès boo xam ne ñu ngi ko waajal ci diggante ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko ak Adji Sarr ginnaaw bi nga xamee ne rek maa xam Diallo euh, daat na jeexal enquête bi nga xam ne rek doon ko def ci dossier bi ñeel Adji Sarr Ousmane Sonko moom nag ki nga xam ne rek moo di maa xam Diallo jébbal la nga xam ne rek moo di dossier ñeel Adji Sarr Ousmane Sonko ki nga xam ne rek euh, moo di procureur laay nag jëmono ji nag la ñu ràññee daal moo di procès su amee rek mën naa jur coow lu rëy ci Sénégal ki nga xam ne rek moo di moo Mollah Morgun nekk activiste bu ñu ràññee lool ci Sénégal mu nekk ab live boo xam ne daal ràññee nañ ko lool ci Sénégal moom nag yëkkati na ay kàddu ci ab live boo xam ne doon na ko def di ci wax lu doy waar di ca wax ca diggante la nga xam ne rek moo di Adji Sarr Ousmane ci ab boo xam ne jamono ji euh, ñu ngi koy waajal seen diggante moom nag ma ngay wax ne daal ñi nga xam ne rek ñoo amal bileb complot euh, ña ngay waajal benn vidéo boo xam ne bëgg nañ koo génne mu di vidéo boo xam ne dañ ko montage mu nekk loo xam ne nag dañ cay wane loo xam ne lu day war la ci diggante ki nga xam ne rek moo di Adji Sarr Ousmane Sonko waaye nag ki nga xam ne rek moo di Mollah Morgan mu ngay génn di dànkaafu di wax ci li nga xam ne rek muy waaji xew mu di vidéo bi nga xam ne rek ñu ngi koy waajal daal nee na daal buñ ko génne daal nañ xam ne rek montage la moom Mollah Morgan mi nga xam ne rek ñëpp ràññee nañ ko lool ci Sénégal muy def ay révélation yu day waa di yëkkati ay kàddu ba tey di wax ci li nga xam ne rek moo xewoon foofee ci Suède bi te di wax ne rek maanaam ki nga xam ne rek moo di Ndeye Khady Ndiaye sax maanaam ñi nga xam ne rek ñoo doon toj li nga xam ne rek moo di kër ga avant ñu koy toj dañu ko filmé lépp lu ñu jël maanaam lépp loo xam ne rek moo di image ca kër ga dañu ko jël avant sax ñuy toj li nga xam ne rek moo di kër ga nga xam ne rek foofu la Ndeye Khady Ndiaye nekkoon moom nag ginnaaw bi nga xam ne sax woo nañ ko muy jël si ay bagages fa mu fekk ay bagages rek moo di ca bitti fekk ko ci biir waaye daa fekk rek ñu génne ay bagages am ca bitti mu nekk loo xam ne nag doy na waar lool moo la Morgan addu di wax ci li nga xam ne rek lu doy waar doy waar la di wax ne rek am na si ñoo xam ne sax dañ di fay rek euh, pour ñu def ay vidéo ay montage ay vidéo rek ngir rek mën a sosal ki nga xam ne rek moo di Ousmane euh, Sonko mën koo taqal li ngir rek su procès amee daal ñu génne vidéo yi nga xam ne rek ñu ngi koy montage ngir rek mën cee taqal ki nga xam ne rek moo di Ousmane euh, Sonko loolu nag nekk loo xam ne doy na waar lool ki nga xam ne rek moo di Mollah Morgun saa saabu nekk rek day addu di wax ci loo xam ne lu doy waar la moom nag yëkkati na ay kàddu di xamle loolee di wax ne rek dana nekk loo xam ne lu doy waar la waaye daal lépp ay euh, montage la wala kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal.